xew xew na ci àdduna bi te lëmb fépp tey di ci jiital ñi nga xam ne ñoo nekk itali ak Espagne ak Espagne ak France ak Amérique ak Afrique du Sud ak Brésil ak fépp foo nekk ak Guinée Bissau bi réew mi ñëpp sëriñ bi mu ngi maase di ñaanal bokki taalibe bi yëpp kon ñu déglu sëriñ bi bisimilah. maa ngi leen di ñaanal bu baax maa ngi leen di ci tur ci turu suñ Muntaxa mi fi nekkal Sëriñ Tuba ak ci turu Alaaji Mbàkke Buso moom fi tawal yéen ñëpp ku waay man nekk nag xam ne maa ngi leen bu baax a baax ah ndigal yi ñu yi ñu joxe nag man de maa ngi jàppoon ci li nu yàlla digal nu sax si bañ ko bàyyi faw li sëñ bi digle itam ñu def ko li nga xam ne état bi digle na ko it loo ci xam ne bokk doonul lu yàq suñ diine nu def ko bu dee lu yàq suñ diine nag dañu lànk ah léegi nag yéen ñëpp maa ngi leen di xamal ne na seen na ngeen rafet njort te am wóorante gu wér ci sëñ Tuubaa men yaakaar te xam ne tawat yii kat yii leen ko jóg ñi ñi am ñi am kattan am xam-xam am alal am doole ba jàpp ne ñëw moom adduna bépp bew ñoom la suñ suñ boroom nit sëñ Tuubaa yi fi ne moo tax mu leen ba tukkarut adduna waaye nag ñoom ñooñu de suñ boroom war na leen ne leen yor leen doole yor leen kudratu man man man sama bopp maa ko yor maa ko yor moo ko def moo tax li bari bari xam-xam li ñuy bari bari doole taw ji ump na leen mbirum suñu borom la yéen ñi nga xam ne mbirum Sëñ Tuubaa ngeen yaakaar maa ngi leen di on wér ne dangeen ci mucc jàmm rek ngeen ci dégg rek dégg ngeen ci am lépp loo xam ne day Sëñ Tuubaa dénkoon na ko suñu mbàkk ci luy mësul mësule def naa ko lépp loo xam ne suñ mbàkk bu sëy ci ci pàkku tef lu ko suñ borom may ak lu ko suñ tubaab may def naa ko yëpp ndax watu xuree suñ bi nga xam ne bi suñ mbàkk defoon na ko nga xam ne ci jamonoy guerre bi jokkoor bi lépp metti su su su moo jóg def ñaan gu ñëw ndax watu xuree suñ di ko def di ko def di ko def keroog bis bi mu waree àgg mu toog ci yoor yoor bi di ko àgg ci gën gi loolu ndaw dikk na ko suñu borom ndaw dikk na ko guerre bi jeex na mu xam ne am am na xabool ah sëriñ Tuubaa it suñ mbàkk lépp lu mu mas a doon ci adduna bu dee ci xalaat tubaab yi day wax ne dem leen ci mbàkk bu sum lu ci xalaatam lu ci wax lool loolu la ñuy def diine ji yen yéen yéen ñi nga xam ne yéen laay waxal damaa bëgg ngeen xam ne suñ mbàkk bu sëddee sëriñ tubaa ci boppam yonent bi ñëw ci moom ànd ak Seydina Jibril ak ulul asmi yëpp ne ko suñ borom nee na jébal na la sariatul islami ba ba ni tukki wax ko sëñ tubaa sëñ tubaa sant leen yeewu leen ba Seydina Jibril jóg di ànd ak ulul def sëñ moom ne ko loolu la sa borom jox de dénk ko Mbàkke Buso sëñ Tuubaa daal na sëñ Mbàkke lii moo tax ma woor a teg naa ko sa rob ba sëñ Mbàkke sant bay jóg mu di ko ñaan sëñ sëñ ko Mbàkke toogal mu tax ne ko mbaa lislaam ci ma la dénk mbaa du ñëw fi man mukk jooy ëllëg sëñ Mbàkke na ko sama bakkan feeg mi fi du ñëw fi yow mukk jooy bakkan suñu Mbàkke ba mu tayle woon ci loolu nag sama suñu bakkan yii noonu ñi ay suñu Mbàkke suñu bakkan ci loolu lañ ko tayle dara mun noo tax bàyyi lislaam bi si du du du du càggeen leen gisoon ci téere yi judd yeeg yooyu yëpp taxut ndigalu sëñ Tuubaa yi moo tax nu ne ci sëñ Tuubaa moo bu nu ko yàlla digalee sëñ Tuubaa ci boppam moo ko fedd lewaat dénk ko si mbàkk bu yéen ñëpp na ngeen xam na sax ci loolu luy dundal lislaam lépp lu leen di yàqal seen lislaam bu leen ci dugg ci duggee si mbàkk bi kii gis ngeen ko bay soldaar yi suñ tubaab doon laaj bi tubaab bi jàqee liñ ko doon sonor sonor sonor bi tubaab bi jàqee ba jàq dañu ñëw suñ tubaab ne ko dimbalenu ci ay soldaar suñ mbàkke bu si yabaloon na ci mbooloo mbooloo mi karab la suñ mbàkke di léemu daf leen ba noppi ne suñ leen dugaloon ci butéel yéen ñëpp dugal leen ci kanu teq kanu gi da ngeen di dellu si man nga xam ne suñ mu ki ñuy wax suñ mën motaar loo ba mu demee moom da daan bàkkoo nga xam ne bu bu bu front bu méttee ba métti bu xeef méttee ba métti ba gaa yi bëgg a lox loxi daan wax day jóg laxa saay daan ne xat xaama xayrul basari wastaxiyaari sumari ila sawi takabri kal badri wastaan bi bu ko defee nee na murid yëpp fëgguwaat mel ni ku beesaat nga xam ne nee na capitaine bi mujj na ko euh, xam takabri yi nga xam ne bu buñ bëggee giif rek day di ko ne ila santé takabri nee na bu ko def mu taxaw ndem tubaab ñoo xam sëñ tubaab ñun ñii xam kuy sëñ maa ngi leen di bu baax jàmm ak xéwal noonu si mbàkk ñaanoo loon ñoo ñu demoon si funa bi nga xam ne si amarta moom dem na ñaari yoon soldaar yi njëkk dem si la bokk ba ba mu libéré ba ñëwit soldaar yi yi doon delluwaat moom moo leen yóbbuwaat ñaanal naa taal bi yéen ñëpp jàmm ak xéwal jullit yëpp nag Touba gi nag moom da ngeen xam moom loolu moom yëf yi yëf yi jeex na ba moom jeex na takk fii ndax yëf yi sëñ Touba tax koo jóg lii fi am ci Sénégal ku ray gi ñu doon ray ñi ak di tëj nit ñi ci lu du yoon ak di atte nit ñi ci bunaat yi lu du yoon njaaxum yi ma doon dong moo tax suñu borom wan leen ne leen ñax gu wow dara lakk gu tooy tubaab yañ doon roy